noo ngi jégalu kaddu yi xanaa ni ko sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mahmoudou Bachir waxe ndax ni ko sëriñ bi waxee léegi rek mooy jëwriñ jëwriñam ci lépp di jiital liggéey bi ci lépp itam luñ ci def doone ci moom lañuy dem laaj ko ci ndigal mu joxe ko ndigal mu door a àgg ci sëriñ bi kon daanaka bu waxee rek ñun amaatuñ ci kaddu xanaa euh, sant rek ak ñaan nu dugg ci bis bi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax ni ko sëriñ bi waxee léegi rek bis moom mooy li gënoon a ñor sëriñ Tuubaa ndax euh, li mu waxal boppam rek sababu xaybati an allah arada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi kon moom bi muy liggéeyal yàlla ci bisam bu tedd bi amul dara lu ko taxoon a jug loo xam ne mbirum boppam la ndax boo fekk na mu am daraje xutbaaniya kon ràmmu xeet wi ak eh, tàggale xeetu yonent bi sallallahu alayhi ak i bàkkaar ak jot lislaam rek moo ko taxoon a jóg ndax moom waxaloon na boppam ne bi may dem ci géej gi ci tukki ba dama mel ne koo xam ne dama nuyu ku ame xetu laj ko lañ mu bàyyi xet ga ci sama loxo nee na ko ma gis ku ne nag ne ma faaw nga may ma lat ko lañ te nee na booba waxuma laa di am lat ko waaye xamuma fa laj ko am nee na man nag kon nag lii ngor ci man mooy fexe ba wuti lat ko lañ waaye neena nee na booba liimaan ak lislaam ak lixsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci malakul muxarab kon moom ba moom ba muy dem ci géej gi dafa fekkoon liggéeyam bépp sotti mu ba mat sëkk mu dem rek ngir dimbale xeeti rasulullahi sallallahu alayhi loolu rek moo ko taxoon jóg bis bi nag moom noonu ko seriñ bi waxee léegi rek euh, cheikh sëriñ Abdul Xaadir daane nett ne cheikh Mahamadou Moustapha moo ko wax ne ko euh, sëriñ Touba nee na àjjana amuti bis waaye suñu boroom ci kàttanam nag moom mi bindoon àdduna nee na xamoon na xam na bis yi magri daal am ci àdduna nee na bu ñu ci agsiwaatee ci àjjana nag kenn ku ne da nga yëg xéewal gu yokk ci yow goo xam ne da nga yëg ne bis bu tedd bi moo la ko jox ba ja toppi daana waxal boppam ne euh, ñaar bu ñu dëkkee kii di ko màggal kii di kii di ko ñàkk màggal boo leen dee xool ñoom ñaar kenn du njëm ba faw sëriñ Saliou daan na ko soññi ak mu jot di ko di ko waxee noonu. màggal gi moom sëriñ bi da ko digle woon wax ne na ko ci ñëpp santale yàlla gàmm gi itam wax ne ñu fàttali ndax màggal gi sëriñ bi da ko daan def joxe ci ndigal waaye gàmm gi nag da ko daan defal boppam muy loo xam ne lu yàgg la loo xam ne ba mu ko dalee def eh, moo bindal bopp ne ahyaytu mawlidan nabi min asasi kon lu yàgg la loo xam ne lu sëriñ bi daa def la bañ na ko bañ ñi ko mas a xam wax nañ ne weeru koor ak weeru gàmm bu mosaan ak si loo soxla ci moom rek boo ko ko ñaanee mu may la ko ndax wax ne danga koy waajale gan gu tedd gi wax na ne bu masaan jub si itam du amati jàmm euh, waxtu nekk rek muy kër kër di waajal bis bi euh, bu demee ba nga xam ne mi ngi bëgg tàggoo yi di dem itam muy gàmm ak koor lu ci day wax ne boo ko waxee itam dinaa ne fi de kenn tëltu dal ndax gën gi tàggoo kon nag sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali di ko soññee di ni ko sëriñ bi daa diglee itam rek mooy kenn ku ne. fu la fekke ci gàmm gi buñ ci àggee jàmm nga dundal ko foofa foo xam ne ay kër Serigne Touba am na fa ñu dajaloo ci kër Serigne Touba nga def ko fa foo xam ne kër Serigne Touba amu fa itam bu fa euh, këru taalibe bi nekkee ñu dem fa dajaloo fa def ko fa bu fa amul tam mbokk jullit yu fa gën a jege ñu dem ànd ko ñoom noonu la ko Serigne bi santaane di ñaar moom itam ñu àgg ci ak jàmm euh, kon nag noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li fa séeree yàlla may ko eh, kattan ak wér ba ba mu àggale ko jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñoo ngi lay ziare di ziare sëriñ Mountakha di ziare sëriñ Bachir mi nga xam ne moom lañ teg ci kanam liggéey bi di nuyu mbokk yi fi teew yépp di jëfandikoo ndigal ndax li nga nu ko sant ndigal waxtu wu dikkee rek njariñ lay jur. ndax wax nga ko ci biir wax ji léegi màggal gi ndigal la kon lépp ci ndigal rek lay lay tege kon kàddu yi ñu ci yëkkati rek moo di sëriñ Basiru mi nga xam ne moom ngeen jiital ci liggéey bi ñun ñëpp am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax am nañ ci dalu xel itam ci li nga xam ne ni lay doxale ñu xamoon ko démb tey door a ñëw kon loolu nga xam ne moom la tudde ñu tudde ko majlisu suuraa ju ko balluloo ci sëriñ Muntaxa mi muy mbooloo mi nga xam ne ay bokki taalibe yu ànd ak moom ci liggéey bi kon ci kàddu googu ci laay waxee ne incha allah li nga xam ne moo taxoon sëriñ bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor jaar Mbàkke Bawol jaar Daaru Salaam ñëw dëkk bi mu di Tuubaa ba dem Mbàkke Baari loole ko yëngaloon ba tax mu dem ba Mbàkke Baari balak fa xew-xew fa ba tax tey jii ñuy fàttaliku bis boobale loole mooy la ñuy sàmm noonu ñëpp loola moo di lam ne woon rek ba fi Maam Mor Anta Sali bàyyi ko képp koo xam ne jàngal la taxoon a jóg nanga dem seeti e, feneen foo ko defee waaye nag képp koo xam ne kii lii ma gis gis nga ko fu ma teg sama tànk na nga fa teg sa tànk fu ma taxaw na nga fa taxaw ba nu àgg fa nu jëm loole la ñuy gëstu kon boo waxtu wu nekk seen ndigal rekk la ñuy déglu moom la ñuy xool ci waxtu wu ne kon fas nañu yéene rek incha allah. niñ ko bëggee rek ni lañ koy doxale lépp lu ci aju ci bis bi na mu waree rek bu dee njàngom alquran bi bu dee xasida yi ni nga ko waxee bu dee astaxfiru ak lépp loo xam ne dina mën a aji dawlu waaye itam ñuy fàttaliku ne bis bii kat dafa dëppoo ak na nga xam ne na la ko boroom jóge woon booba weeru weeru safar bi benn panu àllarba la woon nga xam ne eh, fukki ak juróom-ñett bisub gaaw la dellu siwaat na tey ji yàlla du tàndale lu mu def lu nekk xam ne la tax mu def ko loola itam dégg naa bu dégg naa itam ni sëriñ Mamadou Fadil it ñaareelu atam it nii nga ko defee ci ñaareelu at noonu la yaakaar naa ne loolu itam noonu la amee yàlla moom mooy tànn mooy séddale kenn ku jox na la sab cër waaye cërub sëriñ bi dafa doy sëkk ab cër kon nag dana ci jàpp lu lépp lu man te xam ne kat ni ko sëriñ Bachirou sëriñ Abdou Khadir waxee léegi sëriñ bi ba muy dem fekk na mataloon na lépp amoon na lépp waaye gis na ne njëlbeen gi ñoo ñu nga xam ne ñoo fi nekkoon ci waa réew mi di ko jaxaseek uh, nit ñu xong ñi di ko sàkk waxtu wu nekk ñuy giseek moom ak di ko xoolloo fi mu nekk ndax booba moom ku ñu ñaaw ci yow njort ku ne wala ñu bëgg ci yow lu ñu amul rek dañ la jaxaseeg tubaab bi boobee bañ ko defee ay ay yooni yoon nag mu mel ne loola da leen da leen a dëneerlu ndekete booba am na keneen ku mu doon déglu nag ku lu ñoom ba ndigal la ñëwee nag muy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak boromam booba nag la daal di nangu ñu defee ne ñoom moo leen tax a nangu waaye fekk na ñoom nangu nanguwul leen boromam rek la nangul mooy euh, asiru mahal abraar yi jooju mu waxoon booba fekk na moom kee la doon déglu ñoom ñu defee ne ñoom la doon déglu ba xaw diggante ba xawoon a ñagas tuuti maa ngi wax sëriñ Bachirum sëriñ Abdou Khadir léegi ne ko bi ñuy waxtaan ci waxtaanu màggal gi de ba àgg si ci mbirum ndox mu xaw a jafe am na lu sama xel dem loo xam ne boobu xawoon naa sori lool moo di ba ñu ba ba ñu xëyee Mbàkke Bari ba ñëw ba jeewal bañ tolloo foofu sëriñ moom xamuñu mar naam déet ndax xamuñu nu muy nu muy jëfandikoo diggante boog boromam ci wàllu wàllu lekk ak wàllu wàllu wàllu naan waaye xam nañ ne moom nee na du tiim te booba soxla soxla na ndox ñi àndal na ñoom xam nañ ne ay aadama rek la mar nañu waaye kooku ka ko indi leen ndox moo foofee xamuñu ko mu doon xamul lu muy wax xamuñu mënuñu wax dañu leyaaranteeg moom ñu gis ko mu yor baag bu fees dell ak ndox mu déyal sëriñ bi satta sëriñ bi jàpp ci ñecce ñamaroon ñoom itam naan ma xam ne kon ko ko defal loolee yónnee ko te booba lañ noppee gis waajo na xamuñu ko mu doon kon kooku ka indi loolee mooy indi mooy indiwaat leen li ci lépp mbirum sëriñ bi jag na te du jagati mukk kon nag lii nga xam ne moom la ko yàlla baaxee ci yow incha allah fas nañ ko yéen ni ko sëriñ Muntaxa waxee sëriñ Muntaxa moom yaakaar naa ne li nga xam ne moom la wax bu moom dafa xam ne doyu ko waaye nun de jàpp nañ ëpp na sax noonu loolu royukaay la boo xam ne fas nañ yéene waxtu wu nekk ci loolu la ñuy xëy ci la ñuy ndax képp koo xam ne ki boo gisoon sëriñ Touba warmaal ko dana la warmaal képp koo xam ne bu gisoon doomi sëriñ Touba warmaal ko dana la warmaal koo xam ne nag wax nga loolee te jëfewoo ko am na lu des ci yow fas nañu yéene daal lépp loo xam ne lii bu ñu jàkkaarloo woon ak Serigne Touba mu santaane ko nu def ko danaan ko def ci seen ndigal te loolu moom murid yëpp ki nga xam ne li mu wax dëgg la ci moom ma nga ci moom loolu nag mooy li nga xam ne a tënku te kuy di dem te amoon la doy sëkk dafa wax ne ba muy dem li ko sëriñ Bachir waxee amoon na lépp dafa am nag loo xam ne moo ko doon tax a mottaliku mooy xam na ne booba sunu borom wan na ko ne li ci des nag booy bu jaxasoog tubaab yi nga xam ne jaxasoog ñoom day tax li nga yor sell te mat moo tax mu jaxasoo ñoom dem tamit bi mu demee ba ba ba Conakry la door a dégg turu Gabon bi nee ci li ci li mu nettali moom ci boppam ndax booba fu ñu ko womat jëm rek xalaat ya bari woon lool ñii ne dañ ko sànk ñii ne dañ ko dañ ko bàyyi ndar bu dëkk bi ñii ne bu ñu ko defee lée ci xew ba mu jàgg na ñëpp dogu ci ne nañ ko génn nag génn googee nag moom xam na ne booba dañ koy génn waaye fekk na ne booba asiru ma abrari ina asiru waaye nag la ci kenn ku ne xam na ne bisub Serigne Touba tey ak njabootu Serigne Touba tey la woon démb tey jii wane na ko ku gis sa jataay bi te jàppoon ne bu fi Serigne Touba jóge wala ak njabootam lépp loo fi ku fi desati ku nekk ma leen a tuddee ne ay sëtam lañu wala ay sëtaatam lañu dañu mel ne seen bopp la ñu war a nekk wala lu jamono laaj rek la def tey ji yaakaar ne sa njort war na la buñ toogee fii keroog gis li Serigne Bassirou Abdou Abdou Khadr nett li fii keroog ci liggéey bi li nga jotoo def yaakaar naa ne ku defoon ne da ñëw di dajale di dencal leneen lu dul la nga xam ne mooy li war a dem yaakaar naa sa njort war na la gis nañ ne denc googee Serigne Touba rek te man day du ma ko du ko nëbb nag dinaa la ko wax dinaa ko wax ñëpp dégg ko ba ma la ko waxee ne la nun de bi sëriñ Bachir waxee li fi jot a nekk nun da yéemu nanu danga maa xamal ne mu mo koo xam ne kii bi fi ñooñu nekkee am nga lu doy sëkk li ñëw te war caa dem fu muy jàdd jëm kon dinaa ko ñëpp dégg noonu nga ma ko tontoo ba fi ñëpp nekkee la mu la la nga la nga soxla woon lépp am nga ko kon bi biñ fi nekkatul bi nga nekkee li fi jëm si ci ci ci barab bi kon fu mu jàdd jëm kon loolu day loolu day bilaa bi wane na ko keroog waaye ñoo ngi sant bu baax a baax di gërëm tey na fas yéene xam ne nag nun day këpp goo xam ne kii Serigne Touba ñor na la sam xel dal na képp koo xam ne kii sëriñ Touba ñor la it saw fit tiit na. kon bis baa ngi noonu muy gaaw fukk ak juróom-ñett ci safar fukk ak ñeent ci ci ci ci février 2009 tey nag képp koo xam ne kii taxaw nga ci def ci li nga ca war a def sëriñ bi ko waxal boppam la la ca manqué ci lay lay dese yàlla nu yàlla matalal te fekk leenu ko déwén yu bare bari gën laa sàmm gën a sàmm njaboot gi te njabootu sëriñ Tuubaa gi képp ku ci def loo xam ne wala nga yéene ci pexe moo xam ne mii pexe mu baaxut la yàlla na la yàlla tarxiisal ak koo mën a doon ak loo mën a lamboo a jëm ndax sëriñ bi moom mbiram jag na ba nopp te dolli ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh